alxuraan moo mel nii waaw alxuraan balaa def si yow dana am num la mel melal alxuraan du caaxaan du alxuraan du njàngum tubaab waaw waaw fi ne daara yi li ñu wax naan dañuy defar xaw ma nan daara yi nu ñu ko tuddee modernisé ah, daara dañuy wax rek loolu mënuñu ko waaw li fi newoon démb mag ñi ne jaaroon ci leneen lu fay wax dañuy ko ñoom waaw te tamit sëñ Tuubaa du ko nangu ta waaw sëñ Tuubaa du ko nag mukk waaw waaw maa ngi newoon ci di ci jàngale mooy lii li ngeen gis yéen teg seen bët lii mën da suppi ko kon lii mooy sax ci ci bi mooy tax ci senegal ba àdduna tukki muy li sëñ Tuubaa bëgg ci ci njaboot gi ñi bay ne ci àll bi di jël xale yi di leen def ci ñoom alxuraan di leen yar di leen tàggat jàngal leen mbay jàngal leen lépp bañ mën seen bopp lii mooy dëgg waaw léeg yoo xam lépp dañuy wax rek xëy na nag am na ay yéene yu nguur gi am ñëpp am ko ci ci ci ci ci daara yi dëgg la waaw waaye am na loo xam ne mënuñu ko. bu ñu déggee tamit euh, mbir mi dafa bëri wax wax bi dafa bëri euh, ñu wax ci wàllu daara yi euh, dañ leen di tere yalwaan te ñu gis ne ñu bëri yàlla dénk leen ay koppol ñu mel ni ñoom docteur Papis wala xam tey jëf ji lan nga koy méngale ak jëf yooyu. ah loolu moom nañ ci wax du bari moom nit ñi moom dañuy wax rek waaw xam nga ne ci télé bi ak rajo bi yor sa làmmiñ wu rëy di wax rek looloo fi bari waaye ñi ñi ñi yor ñi yàlla may wërsëg ñu war a man a jàppale jaay xwaan te yàlla tax bari nañ fi lool waaye nit ñi mbërum làmb lañu jàppale waaw mbaab saay-saay waaw waaye nit ñi moom kenn képp ku jëm ci yàlla saf safu leen waaw kon ñi wax yëpp di ko wax ci télé yi yooyu du waxi wax loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg waaw waaw waaye ah, li Papis Ndoye def jël alalam ah, jël kot lii mooy yoon waaw nañ bàyyi wax ji te jëf lii jëf moo wér waaw lii jëf la bokkul ay wax waaye na ci télé yi di wër télé wax naan daari alxuraan yi ah faaw ñu yalwaan man dama doon yalwaan ma nekk daara ji kenn mënu ñoo tere yalwaan donc daara day yalwaan waaw kon yalwaan gi du caagi ne ñoom dañoo tumu rànke dund bu doy na waaye nag dañ yalwaan ci dëkk bi waaw yalwaan añ yalwaan reer waaw waaye teewul ñu ngi jàng kon yalwaan yalwaan duñ ko ba yalwaan kenn mënu ko fi dindi noonu day faaw nu yalwaan loolu mooy toroxlu sa jëmm ji ah di yalwaan donga yi di jël di ñelwaan di ko bokk di ko lekk di jël ñam yi di ko jaxase loolu loolu dañ koy fekk waaw loolu moom du fi jóg mukk kon nu ngi sant bu baax a baax Papis daal li mu def mooy dëgg waaye na ci yi di wax ak yooyu réewu làmmiñ rek la yor seen alal ji ñu naa topp mbëri làmb yi topp topp yi ah di jël seen alal ji di ko foye ah fecckat yi loolu leen ñor waaye yàlla ñoru leen barki Sëriñ waaw waaw kon nun lii lañ bëgg ko def ku yor sa alal def ko ci daara alxuraan ni te yàlla te yàlla ta waaw kon nu ngi leen sant bu baax di leen